Quench Double Moteur albaat arbit baa ngi leen woo ñëw leen ci digg géew bi combat bi doon xaar ay at di ko xaar ay weer yegsi na léegi Quench ëf na ko sunguf ba mu yoroon arbitre baa ngi leen di laaj li làmb nangu ak li bañ nee leen borom ci digg géew bi la nee leen xaar leen tuuti arbitre baa ngi dugg ci digg géew ba lu koy déey am na lu mu koy signalé juge ma am na lu mu ko signalé arbitre baa ngi laaj ay jugeem Baba Diaw mooñ fi woo il est 18h18 19 20h18 boog double ngay demee wet ñoom ñaar Quench moo ñu woon ginnaaw double moteur la ñu jàkkaar lool Baba mooñ fi woo double moteur bi ma gis daa mel ni dafa bëgg a xeex ak Quench waaye bu xeex ak moom est-ce que dina ca génn. Quench sang koy xool Double Moteur Quench ñoo ngi damante baaraam Double Moteur Quench ñu xeex mënu cee ñàkk Double Moteur Quench ñoo ngay nappante Double Moteur Double Moteur daaw nañ jàppante jàppante nañu duubu mëtal Quench Quench door na léegi Quench door na léegi duubu mëtal da koo bëgg a plaqué duubu door na léegi Quench duubu mëtal ku nekk jàpp na ndengeñ Quench jël na tànk ba Quench jël na tànk duubu mëtal duubu mëtal bañ duubu mëtal Quench cey làmb làmb jaay noonu ndaanaan la ci wàllu bëre ma ko ay xale ndaanaan la ci wàllu bëre Quench làmbaat na léegi Quench double moteur double moteur door na léegi Quench door na Quench double moteur eh, double moteur wëñ biij ko léegi pompe waat na moom double moteur Coensa ngay dóor Coensa Double Moteur Coensa jàpp na Coensa jàpp na Double Moteur jàppul ndengeñ Coensa Double Moteur Coensa Double Moteur eh, Quench lu mu bëgg a def ko bëgg kal waaye kal ba daa sori Quench Quench dafa bëgg a bëgg kal ko Double Moteur ngay dóor Quench ngay dóor Double Moteur Quench làmb ji mënut a yomb eh, Quench fam jàpp baax na kenn ku nekk bëgg sa loxo féete ci biir xoolal damier ba ñuy def kenn ku nekk bëggul féete sa loxo féete ci biir duubu moteur yi muy dóor baax na caxabal na ko caxabal na ko Quench caxabal na ko Quench duubu moteur liggéey combat bi daa yàgg dañoo waaj waaj bi am doole combat bi mënut a yomb Quench wàcc na ba suuf roof ko caxabal nee na sama bëre dama koy làq su ma ko génnee léegi mbëri duñ ma jël Quench double moteur Quench double moteur Quench door na Quench double moteur cey bi làmb Quench jàpp na dafa mel ni dafa am lu mu bëgg def fàq na ko fàq na ko kal na ko léegi Quench sa ngay liggéey waaye Double Moteur mbokk yi dafa siggi na jonn bàyyi Quench sa ji est loolu yoon la Quench Double Moteur jege nga saako yi Double Moteur Quench Quench ne na ko di liggéey Quench Double Moteur Quench Double Moteur Quench am na loxo ci ngemb jàpp loxo Double Moteur bi kal na ko moo ngi koy oh, baaxul Double Moteur siggi bi nga siggi du yoon siggi bi nga siggi du yoon Double Moteur bu woo nangu waaw waaw woo nangu loolu kon si Double Moteur Double Moteur lu muy def nii Double Moteur lu tax mu bàyyi boppam Quench Double Moteur lu tax mu bàpp mu bàyyi boppam Quench Double Moteur li ngay def est-ce que wóor na lamb jaa ngi noonu ci diggante Double Moteur Quench caxabal na ko caxabal na ko cee làmb ji Double Moteur Quench xale yaa ngi bëre abi bi siflewaat na coono ngi commencé feeñ ma ne coono ngi commencé feeñ Double Moteur Quench eh Quench door léegi ku bu baax xale yaa ngi bëre mais man li ma ci xaw a jaaxal ak mooy dañuy jàppante waaye Double Moteur fële lay sànni bopp ba ko léegi dooraat na ko. ma sentir na coono yi commencé feeñ. Double Moteur añ na ko. Quench am na benn loxo ci ngemb. Quench Double Moteur. combat bi faaw mu am calcul. waaye Double ni mu taxawee baaxul. Double Moteur ni mu taxawee baaxul. Quench Double Moteur. Quench Double Moteur Quench Double Moteur Quench wàcc na Double Moteur jàppul fenn Double Moteur Quench Double Moteur li mu bëree wóorul Double Moteur li mu bëree bëgguma ko waaye Quench jàpp na ndengeñ nuuru ci suuf añ na ko léegi tànk ba nga yóotu daa sori Quench si tànk ba nga yóotu daa sori Double Moteur Quench dafa mel ni dañoo commencé sonn ñoom ñaar Quench sa ngay dóor Quench dóor Quench si Double Moteur lamb yi newoon naa leen mënta gaaw calcul yi da ciy bëri Quench xale yaa ngay bëre Quench sa ngay dóor Double Moteur jàpp na ba mu dëgër Quench jàpp ba mu dëgër fii est mbot mënu fa woon am yoon est-ce fii mbot amu fi woon yoon Quench xaar na ko léegi Double bougé wul Quench ngay dóor dóoraat coach ba ngay wax ak moom oh Ardo baaxul Double Moteur Double Moteur dafa commencé sonn Adama Adama Double Moteur dafa commencé sonn li mu jël ci poids dafa bari Double Moteur commencé naa sonn. coono feeñ na demal ardo nangoogu la dem ardo day noppalu Double Moteur sonn na Double Moteur dafa sonn poids bi mu jël dafa bari maa ngi stade ba léegi de maa ngi stade ba léegi déggu double moteur. double yi fekkiwul kenn. saako yi. double moteur Quench. Double Moteur Quench tegante nañu bopp eh Double Moteur ku jël baaxul Double Moteur ku mu jël baaxul su yàggee du mu ko bëgg Double Moteur Quench dañuy damante baaraam tegante bopp rocc loxo dóor Double Moteur Double Moteur Quench coono feeñ na waay waay coono dugg na waay Double Moteur Quench Double Moteur laaw na léegi Quench Double Moteur door na ko Quench door na léegi coup bu dal Double Moteur Quench eh Double Moteur ñoo ngi encaissé Quench dóor Quench sa fa mu jàpp baax na Quench fa mu jàpp baax na waaye Double Moteur dafa xaw a diis Double Moteur daa xaw a diis Quench moteur bëreewul dóorul double moteur bëreewul dóorul jàppul yi tamit est-ce que la muy def avantage la moom double moteur est-ce que double moteur la muy def avantage am la daa bàyyi ak làmb ji coince coince dóor fa ko neex di xool fa ko neex di dóor di xool fa mu neex mu jàpp est-ce que avantage double moteur la. Double Moteur say supporters sax jaaxle nañu kenn xàmmee watul Double Moteur xaar na ko léegi moom moom Quench mais Double Moteur daa xaw diis Quench ngay dóor ba sàmm nga say tànk Quench ngay dóor ba sàmm say tànk Quench Double Moteur Quench ngay dóor Double Moteur bu yàggee nga dem Double Moteur doo bu takkul nga dem Ardo Double Moteur jéemul dara daa taxaw rek na jonn mais Quench saa bu forcé bëre bi waaw waaw xoolal saa bu dina ci am lu ko bett Double Moteur dafa sonn Double Moteur daa sonn xale yu Quench yi newoon nañ ma Double Moteur moteur bi dañ koy jàpp ko tas ko waaye est-ce que Quench dina ko tas Double Moteur sonn na Double Moteur dafa sonn. poids bi ñu jël dafa bari Adama Double Moteur poids bi ñu jël dafa bari bëgg naa tolloog yow bu mu tax nga jël loo xamante ni bokku ci Double Moteur Quench ci biir làmb ji Quench booy Double Moteur am na trois avertissement Quench am na lu mu bind teg ca ba Quench am na lu mu bind ci suuf teg ca tànk ba tourné dox ci kawam neen na ma woon bi dama koy jàpp tas ko def ko pièce détachée waaye est-ce que Quench dina ko pièce détachée double moteur dem na ardo dellu si waat am trois avertissement double moteur Quench double moteur dëkk na fu nekk Quench daw na jël ko daw na jël ko juwaat loog moom Double Moteur Quench Double Moteur Double ku ñu koy jël baaxul door na ko Double Moteur Quench eh, eh, Double Moteur Quench Double ku ñu koy jël baax na Double Moteur ku ñu koy jël baax na Eh, Double Moteur waaw Double Moteur lu muy def nii lan la Double di def nii Double Moteur est-ce que doyul ci combat bi est-ce que Double Moteur doyul ci combat bi. Quench bul forcé Double Moteur ni baaxul waaye est-ce que Quench bu forcé dina ko arranger Double Moteur jàppante nañu xolamal nag yi waa lii lu mu doon Adama jëlama lii wee lapin ya xolamal lapin ya fañ jógee bu weex la ñuul bu leen dugg ci diggi géew bi bu ci diggi géew bi Double Moteur mi-temps a waa ngi laaj ay jigéen Double Moteur bëre nañu ba mi-temps arbitre bi sulle waat na Double Moteur Quench wan ginnaaw Double Moteur lañ jàkkaar lool Quench Double Moteur ñoo ngay demee ñoo ngay demee wet Quench Double

Double Moteur Quench lewaatoo bi yàgg na jege yaantoo nanu Quench xàcc na Double Moteur dagg lewaatoo bi

Quench Double Moteur Double Moteur Quench Habib yaa ngi wax ak ñoom moo ngi naa leen bëre leen laala baax dóor la eh, kon si dóor na ko léegi waa Double Moteur moom li muy encaissé lépp Double Moteur Quench combat bi mënut a gaaw calcul baa cee bari. Double Moteur Quench lamb ji est-ce que dina am ko kuubu daal. su combat bi jeexee fii ki nga xamante ne mooy Quench moo cay amee ndam Double Moteur am na du ñor. Double ah Double Moteur Quench. combat bi yàgg na. Double Moteur poids bi mu jël dafa bari. ah yow am na la fu wax laay gën a gëm de. ah man la faaw. moo neex naqari lay gën a xeeñ. ndax nawet bi bés bi gën jël dootu ko jël. waaw ndax ñu ko indi bu ko xoolee. waaw wax ko ñu ko yëg ñu. waaw Quench Double Moteur. te yaa ngi mën a déglu. waaw li nga xam ne jaay ker nag ba jarle. loolu tàmm sax bu la fekkee ngay xaar ci ñu gën a laal li ngay ñaata lay jar doo ko dégg. subaati. bu doonee seddaay quatre heures trente man mii sax damaa ay mbay Quench ji jeex na lamb ji jeex na Quench daan na double moteur Quench am na ndam double moteur double moteur am na cinq avertissement